passer donc euh, à l'étape euh, de la revue des titres euh, de presse de ce matin et comme tous les jours wax naa ko dañuy doore ak yéenekaay bi di l'observateur l'observateur mi wax tey ci mbirum insécurité routière meurtre et peine de mort les coups de gueule du général Niang nee na d'autres taximans risquent d'être tués ils sont arrogants et mal élevés hein, selon le professeur, euh, général Nian. Et je suis pour la peine de mort. Elle est dissuasive. La circulation routière au Sénégal est cause d'insécurité. Également, ci une kon l'observateur Barthes plaide non euh, coupable. Libération euh, de ce matin nous parle du fichier électoral. Audience au Saro. Euh, tous les leaders ont donné leur accord de principe après la lettre du président lu euh, par euh, Malick Gakou, ce qui est réellement à l'origine du malaise à lire donc dans Libération. Le témoin quotidien parle de la gratuité de la césarienne mu ne nag une grosse arnaque loolu rek daal di wax ne ne les remboursements plafonnés à 85 000 francs des patientes du public paient des ordonnances excessives témoignage poignant de femmes césarisées donc à la la une du journal Le Témoin enquête euh, yéenekaay enquête yéenekaay moom ci xët ba mu daal di wane kon photo Barthélémy Diaz sol costume nag euh, bu macha allah euh, la muy wax moom Barthélémy Diaz gannaaw ubbi procès mi tey ji ci suba nee na nag je refuse de comparaître Barthélémy nee na kon du dem wuy ji tey ca procès ba loolu moo nekk ci xëtu yéenekaay bi di l'enquête xët wa ne nag procès d'ici là. Alors, deal avec euh, Karim mais ba léegi ñu wone euh, Papa Abou Camara à travers